Magal Touba 2020 tey euh, ñu ngi euh, fi nga xamante ni moom moo di euh, diwaanu jannatu nekk ci biir Touba waaye bu ñu waxee jannatu tamit xel yëpp day dem ci ki nga xamante ni moom moo fi jógee ñaari at fi tey di Cheikh Béthio su ñu waxee Cheikh Béthio Thioune it dinañ xalaat ki nga xamante ni moom moo ko wuutu Euh, ci euh, famu mu euh, fess fa del di ki nga xamanteni mom lañuy wax Serigne Saliou Thioune Serigne Saliou Thioune ñu ngi fi ci diwanu donc jannatu ngir waxtaan ak yeen ci li nga xamanteni mom mo ñeel magal gi de manière générale waye spécifiquement ci li ñuy wax don li nga xamanteni mom modi organisation ak manam ni ñuy taxawé ci li nga xamanteni mom modi magalu gren gi magalu gren gi nak donc ñun ñëpp ñoko xamando li nga xamanteni mom modi febar bii di coronavirus eh, gane si àdduna Euh, depuis euh, le mois de février euh, tey ñu koy dund ba léegi donte sax xëy na xew-xew bi ñëw na waaye dañuy doon ñoo xamante ni xëy na dañuy wéyee ndigal ci wàllu peut-être gest barrière yi nga xamante ni kër docteur ñu ngi koy diglee waaye tamit fii ci jannatu du ma ni respecté wuñu li nga xamante ni moom moo di ndigal googu nga xamante ni moo jóge ci waa kër docteur ki nga xamante ni moom moo di xalif bi di Serigne Mountakha di xalifu Cheikh Ahmadou Bamba moom it yeesal ko daal di koy dëggal fii eh, ci jannatu ñu ngi ko fi dawal ñun bu ñu ñëwee màggal ñëw jannatul déjà loolu wàcc nañ suñu devoir lañu def donc euh, quant à nekk ci organisation bi lépp jëm ci organisation bi ak yëpp nii euh, yàlla dafa dogal sëñ bi teg ko sama loxo donc du coup may def kéem lu ma mën rek ah, pour euh, dab mbégum sëriñ bi donc nonu ne noné la demee. Euh, suñ borom dafa wax ni képp ko xamni sant nga ko mu doli la layin sakkartum laa si képp ko xamni sant nga man yalla na la doli te sunu sangi ba sëñ Béthio kenn ku nekk xam nga ni euh, liñ ko mëna a diko tuddu moy ak tiant moy fim ko yobbu ak fim ko indi melna ni tum ranké won na nga gis ku yobbu fofu ak tiant te bis bi Sëriñ touba da wax ne nañ ko sant la yalla liko dalé ci ginar ba ci gilem mu doon bis boo xam ni jullit yëpp a ko bokk ak sax ñi dul jullit laay wax waaye nu askanale ko murit yi ndax wolof dafa wax gën a jege gën a yey muy bisu murit yi muy bis la boo xam ne bisub sant yàlla la. waaye boo ko tuddee sam xel dana dem ci sëñ Béthio donte li ñii ma lim ñëpp ñoo ci bokk waaye boo tuddee bis bi sam xel day dem ci sëñ Béthio. bâche bi ku ne xam ne ne daanul toll nii. Ah, fexe nañ ba yemale ko ndax sëñ bi dafa ne juste nañu bâchal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngkatu xasaay di ak euh, ñiy jàng alxuraan ah euh, euh, ak kuréel yi dem à tout de rôle donc ñoom la ñu defaral lii ah boole ci ay yeneen affaire yoo xamante ne comme sëñ bi amul tànk ginnaaw jéem a renforcer sono bi ak waa Las Evans ah, nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla ku ne xam na ne seen ay liggéey dafa mucc ay du dëgg. Euh, ñoom mak ñoom à chaque fois nyom ñooy liggéey donc ñun ñëpp benn lañ. Euh, bu dee ci wàllu mbas mi ngay wax te mu dëppoo xew-xew wi ku nekk dégg nga ni ci sëñ Muntaxa waxee muy xalif général des Mourides di sunu yaakaar tey ak ëllëg ku nekk xam na ne sunu sang bii nu àndal muy sëñ Saliou Thioune bañ na bu ba boo da nga ciy ndigal donc jox ci ndigal ñi nga ñu di leen wax docteur yi. maanaam li nu saytu ba gis ni képp koo xam ne tënku nga ci danga mucc ci tawat ji loole lépp waaj nañu ko te noonu rek lañ ciy doxee diiru boobaak léegi wax tumuranke moom amul sëñ Béthio nag euh, moom lañ daan àndal ci jëmmam jin ko miinee daa ko gis waaye ci njëlbeen mënoon nañoo amuk jaaxle waaye taawam bii nga xam ni moo nekk sunu kanam bi mu jógee doxal rek gis nañ ni sëñ Béthio jógu fi doomu aadama nag moo moo moo baaxoo lu mu miin bu ko noppee gis mën caa amuk jaaxle waaye fii may wax ak yow loola moom amul ndax sëñ Béthio moom mën nañu ni gisugu ko nii waaye yéen ñi fi ñëw te daa fi ñëw gis lii xam ni ki daa jëf-jëf ji jógu fi taalibe yi mooy ñi nga xam ni dañuy jëfe ndigal te damaa yaakaar ndigal dara gënu cee màgg xalif général des mourides ndigal li mu joxe keneen ku jàppe sa bopp ak taalibe te mooy ndigalu xalif général yow yaa jàppee sa bopp ak taalibe talibe yi nag moom mooy ñi nga xam dañoo jébbalu ci sëñ Béthio yaakaar ko tey ak ëllëg mu mel ni dañoo noppee gis sëñ Béthio ci seeni bët ab taawam ñëw nu jébbalu ci moom te bu fekkee xam nga yoonu murit ni muy doxee xam culture murit danga xam ni loolu mooy aaday murit ji ñu war a doxee te loola mooy xam-xam te loola mooy li rafet ndax dégg nga ma loola nag bu dëppook

Varda wàllub organisation bi gis nañ gaa ni am na ay coppite yi nga xamante ni am na euh, par rapport ak euh, année précédente yi loolu tamit ñëwal nañ leen ci euh, ci ni mu gënee xoot li nga xamante ni aussi doon na liggéeyu ñenn ci jëwrin yi ci wàllu ceddaleeg nag yeeg yu ni mel yooyu it ñëw nañ ci bu baax a baax a baax waxtaan ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu woowu fii ci jannatu du ñu def lenn lu dul donc gërëm leen sant leen ci teewaay bi di leen jox dig daje rek ci bésub màggal gi xamanteni mom modi wattay gi waye dinañ euh, gëna xotal mbir yi euh, fi ak ay fan yu néew euh, ci li nga xamanteni mom modi li soxal magal Touba 2020 fi ci jannatu salaat